Papa Ndiaye noo yaa ngi ci jàmm call naa la woo naa la léegi call naa la obviously jëluloo message naa la xam naa ne gis nga ko because yaa ngi woon online ok lu ma la bëgg a wax lu tuuti la rek te bariwul man damay respecté nit damaa bëgg ku ma ko delloo ba mat sekk parce que jëkkër bu ma takk sax teg ma xam na ne maa gën a réew kaa la ñu réew maa fi gën a baax nag maa fi gën a mën a bëgg nit maa fi gën a mën a respecté nit mais bëgguma ku ma manqué de respect parce que duma ma du manqué de respect nit duma ma disrespect nit si gàttal. li nga toog di ko wax ak Omar si télé bi Omar naan la guddi guddi pikin lay deelu muy gëllam boobu xaw ma yeesaloo xaw ma rakku xadiloo bi xam nga yoo xamuloo ne man xam naa ko te xam na ne man xam naa ne kooku gëllam la woon. ña ànd ceeg Omar naan ko def ci code te yow yaa Omar yéen a ànd dem liggéeyi xam naa lépp lenn rek laa la bëgg a wax ñàkkuma fayda manqué wu ma Omar yabu ma yow yabuloo ma te man gisuma kenn góor yabul jigéen yabul te du Omar du tax kenn ku ma waxoon naa ko bu fekkee moom dafa manqué ba Sénégal yëpp yab ko man yabuñ ma parce que man xam naa sama bopp xam naa kan lay waxal xam naa fan lay dem ak lan lay wax ak kan lay wax ak kan lay waxal manqué wu ma. daw ma si gannaaw kenn rasaataw ma lu ma am maa ko moom sama histoire euh, Omar nag damaa bëgg nga génn si ba mu set Papa Ndiaye rus naa la respecté naa la te jox naa la cër te bëgguma ñu yegg fee nay ma seetaan entre temps ba jeex Omar sama guerre ak moom du ma mu ne dafa capable toog tudd xadiloo naan naan guddi guddi pikin mais moom bu fekkee moom dafa guddi guddi pikin kon na am jom mu fase ma ndax moom mënul yor jabar ku mënul yor jabar nag gel sa mënoo ko yor ndax takk na jabar mënul ci man ñaari salaamaaleykum du dépasse du añ du reer dëkkewu ma dëkkewu ma yow mii xaritam laa koy wax nga da nga fimiste rek waane ànd ak Omar ci yëfi noonu seen si fi manka kunka yi muy def ci télé bi dama la koy wax nga yegge ko te vocal ma pare dama koy yónnee ce que yaa dégg bu baax moom dafa takk jabar te mënalul jabaram salaamaaleykum du dépasse du añ du reer mënul yore jabaram ndax ba ma takkee ba tey dërëm dërëmam duggul ci man te yëfi ñàkk fay fayda yëfi mankaakunkaan la dikkee di toppa si gannaaw di Diop la dëkk subaa ngoon guddi ak bëccëg def yëfi mankaakunkaan di fecc ñu koy snap xale jigéen ñi di ko snap di ko dugal si snap bi sa doom day la dëkkee naan ñaan baat nag chaque jour ma ñaan ko baat bañ na ne du ma fase comme sa doom day la yéen ay ànd pikin yéen ñaar si si kër yee xaw ma si kër rakku xadiloo bi bu fekkee na nag bëgg nga ko nekkoon dama fase te dafa bëgg mu ñaaw comme dafa toog si télé bi di gaaral dinaa ko ñaawal dinaa ko saltel ba salte moom la Sénégal njaay xamul dinaa ko leeral ba mu leer mais dama la ne yow bu Omar toogee di gaaral damaa bëgg nga neutre si génnal sama diggante ak Omar buy gaaruwaale wala nga bëgg lu neex Omar loolu fajee ko neneen mais pas muy dugg samay 18 nga ciy dugg wax naa la ko nag duma la ko waxaat rus naa la trop te respecté naa la ba nga woowee keroog di wax ci oma dama wax ak yow ci njekk ak teraanga man oma du sama far sama jëkkër la est-ce que yaa may dégg bu baax bu fekkee dafa am fooy far wala fooy farfarlu da ngay xaar ba takk jabar papa Ndiaye rus naa la nag rus naa la trop lii rek laa amul lu ma la wax.